saa su ne yéen ñi nga xam yéen a nuy dinu tiitaroo macha allah saa su ne ngeen jënd seen connexion wala ngeen am seen wifi di seetaan Talibé TV tey nag danoo toog ak kenn koo xam ni suñu borom dogal muy kilifa macha allah di seen biir émission jotay xam muy Serigne Demba Sall Serigne Demba ñu ngi lay nuyu la bàyyi nga safante ngi lay seetaan alhamdulillahi alladi ibtada bi nafsihi qabla an yahmaduhu kull hamid وصلاته وسلامه على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا همة الشيخ احضر لنا بحاصل المحضر والتحتفي بنصرة تأتي لنا بالسفر سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل حقدة من لساني يفقع قولي فتبارك الله gannaaw سنت ñu sant yàlla شيطان nuyu فتبارك الله ñuy seetaan di ñu ngi leen nuyu bu baax di siyaare waa télé bi yëpp di leen ñaanal yàlla fa laa fi ngeen bëgg yàgg yàlla na yàlla yóbbu leen fa ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam ngeen ànd ak yéen xëy na li taxoon ñu seet si la muy bëgg waxtaan ak yéen macha allah ci euh, mbir muy jamono ji xëy na ak boo ne booy mën a wax actualité ci réew mi mm-hmm. te doo wax sëriñ mën mm-hmm. a wax actualité te doo wax njabar mm-hmm. nit ñi nag am jafe-jafe wu njabar ak sëriñ duy seen wute ñu ni woon nag tey bu ñu la seetsee bokk na ci lay laaj lan mooy wuteeg njabar ak sëriñ bi leen wuute damay wax ne maanaam yaatu na maanaam sori na daal mhm. ñoom ñaar sori wante nañ mhm. njabar ak sëriñ mhm. sëriñ day ñaan fa tabaarakallaahu ci yàlla jaaree ko ci alquran wala jaaree ko ci turu yàlla wala jaaree ko fa tabaarakallaahu ci barke bi yonent yi wala barke awliyaaw yi njabarkat moom day wax bu neexee yàlla dana am bu naqaree yàlla dana am damay wax ne képp kuy njabarkat maanaam li ngay def day échec ah waaw ñoom ñoom ñu naan bu naqaree yàlla dana am te muy am yàlla mën walaa yëflihu shaa'iru hay su ata njabarkat du mas a texe yàlla boo waxee du mas a texe na adduna àllaaxira ñoo ci yam du texe ci adduna du texe ci àllaaxira mooy walaa yuflihu shaa'iru hay su ata ñaan yàlla dafa doon loo xam ne damay wax ne nit ñi niñ foog ñaan ak ni ñaan mel ni ñaan toll dafa wute cuun fii ku fi tedd ku ne ñaan moo tax nga tedd waaye ku fi alaku ku ne ñaan moo tax nga alaku ku fi tedd ku ne ñaan moo tax nga tedd waaye ku fi alal ku ne ñaan moo tax nga alal ko kon maanaam nit ki mënta dund saa ñaan nit ki mën loolu maanaam ku dul ñaan yàlla damay wax ne ab yéeféer la ah waxuma ko de yàllaa ko wax ku dul ñaan yàlla ab yéeféer nga yàlla ba mu ne udduuni sajib lakum lu mu ci teg inna allazina yastakbiruuna an ibadati sa yadxuluuna jaal na ma daaxirina maanaam damay faral dama lay wax nag ay alxuraan yi ñuy wax faraatuñ ko dañoo jàngoon ca daara ja inna allasina yastakbiruuna an ibadati sa na jaal na ma daaxirina yàlla nee na ñi nga xam ne dañuy rëy rëylu ci ñaan ma ñooñu fa tabaarakallaahu ay maanaam bu ñu dee yéef safar jaal na ma lañ jëm jaal na boo ko waxee ne am na jaal na am na addina am na alaxira waaw te te kon loolu buñ ko waxee maanaam yàlla nit ki mu toog ñaan ka wax waxul mu dem ci sëriñ ñaan lu ji da ñaan lu ci sëriñ moo gën a dagan fuuf fuuf fuuf toog di ñaan yàlla sëriñ est-ce du li nga ne sëriñ rek. nga lu tax ah, déedéet xam nga lu tax mm-hmm. xam nga lu tax dama lay wax. Mm-hmm. xam tax mm-hmm. yow jamono bi ngay ñaan yàlla wóoloo ndax yow di nga ñaan gi dina nangum déet. dafa bokk ci sartay ñaan mooy nga wóolu na yàlla dina nangu sa ñaan gi. dafa bokk ci sartay ñaan nga wóolu na yàlla dafa nangu sa ñaan gi. te sëriñ wóolu na ne moom mi bu la ñaanalee sa aaju dana faj. mais yow mii dem est-ce que sëriñ bi dina la wóol tamit comme que léegi réew mi dafa bëri ay sëriñu businessman ak yooyu. dama ne la. sëriñ bépp sëriñ bu ne ci kaw bi réew mi. yu ci ëpp ay politiciens lañ duñu ay sëriñ gis nga cuun euh, nit boo toogee sa sa sa maanaam nga nga déposé visa mu jafe. wala nga am sa diggante ak sa problème sa ja sa jabar problème. wala fa nga bëgg tukki mu jafe. cuun boo ñëwee. bu soobu yàlla buñ tawasuloo ci li ñuy tawasulu semaine ba balaa muy del sa ñaan ya sa sa ñaan maanaam nga nga dem. sa problème day réglé amul luñ ci amul luñ ci xaar. Ah, mais sëriñ yow koo xam ne tamit day ñaan rek. Hmm. kii ñaan kay ki muy ñaan sañ na koo may sañ na koo bañ a may. sañ na koo mañ hmm. sañ na koo bañ a may. Hmm. waaye yàlla ku koy ñaan ku ne da ngay wóole na sa ñaan gi dina nangu yonent yàlla mu xam moo ko wax de. ud'u laha leen te fekk wóolu ngeen yàlla kat da leen ay nangul. ngay ñaan allahuma allahuma allahuma allahuma tañ na nanguwul. foofu mu ngay déggee ne. dem ci sëriñ moo gën a wóor toog di ñaan dem ci sëriñ moo gën a wóor toog di ñaan léegi tey lan mooy njëriñal ñaan ñaan lan mooy njëriñal ñaan ñaan da ngay am nakar ñaan moo la koy uññil yonent yàlla muhammad sallallahu Alaihi Wasallam. sallam xam nga dafa ad du'a silahul mu'min mm-hmm. moo tax julit boo gis mu yor ay fetale ki jaase mm-hmm. xamal ne xamal ne maanaam yor ngàndaayam fetal jaase du ngàndaay de fetal ak ak fa tabarakallah li ngay laq sa bir auto wala sa bir sa bir sal uh-huh. du nganday ngàndaay ngàndaay la moy ñaan yalla yentu moko wax di addu'a usilahul mu'min ak julit deug ñaan moy nganday ak ray yi xew fa ni yep nga ni gànnaay mënu ci dar foo fekk ku ñu ray ci ci ci àllab kert ndek uh-huh. wala mu de ci alab kert wala mu dem ci de ci tiaxan uh-huh. xam ne da wolu da gëmul serign wala da gemul ñaan ku gem ñaan ku ne wolu wolu yalla mm. yalla moy doon sa nganday yonent bi sallallahu alayhi wa bi ak xiste bi ma la bëggoon nettali waa ji bi mu ñëw fekk moom kelle ci àll kertandeng yëkkati jaaseem na kan mooy dox sama diggante ak sa kan mooy dox sama diggante ak yow wax ko yonent bi waaw ko yàlla waa ji jaase ji nar a caw bi loxo ba lo loxo bi di métti ba mu daanu yonent bu far jaase ji yëkkati kan mooy dox sama diggante ak yow <laughs> kan moo dox diggante yonent bi ak yàlla yonent bi waa ji yàlla suñu borom bi mhm. kon nit da ngay wóolu ne ñaan moo am. Hmm. ñaan am na. Hmm. nga wóolu ne diw kat tax xam nga lii lii problème xam nga yow sa làmmiñ. mën hmm. nga cee mooy yàlla. waaye est-ce que làmmiñ doom ak jaamur mën nga mooy yàlla. dafa am benn kilifa démb daf ma ñëw seet si. ñu amul ñun jëflante ak moom. bañ jëflante muy semaine ni ma la ko waxee. aajom sotti. mi ne ma man daal li ma leen li aaju bi sotti ni ñaan naa ko yàlla ay at. waaye nanguwul. te gis naa ne nangu na. lan moo ko waral ma ne ko làmmiñu làmmiñu jàmbur mënoo cee mooy yàlla kon nit koo gis ci àddina dem ñaan luju moo gën a dal xel nga ñaanal sa bopp macha allah te ñaan kat dama lay wax ne képp kuy ñaan di caaxaan yàlla ne mere na la maanaam te ku dul ñaan lu ji yàlla mere na la <laughs> ku dul ñaan wala ku ku ñaan lu ji yàlla mere moo ne man lam yasalillaha yaqdiba alayhi yonent moo ko solo ci addis moo ko indi ci hadiis ku dul ñaan yàlla yàlla dana la mere booy ñaan dangay ngay tawasul fooy tawasul ci yónenti wala alquran nga ñëwaat yàlla nee na uddu rabbukum tadarruan wa xufyatan ñaan leen seen borom te fekk jamono jooju yéen a ngi yéen a ngi yéen a ngi toroxlu yéen a ngi wàccee seen bopp wàcce sa bopp maanaam ganta garaaw nga dem ci sëriñ mu toog ca kaw nga toog ci suuf yàlla loolu la wax loolu nag képp ku rëy rëylu ci loolu mhm. yàlla neen sa ñaan du nangu kenn du la ñaanal ba mu ba mu am nangu kon nekke kii ñaan lu ji sax buy dem ci sëriñ dafa am jikko yu mu war a yóbbaale dafa war am jikko yu mu war a yóbbaale mhm. boo demee sëriñ bi ne la toogal fii toogal fa mu la wax mhm. te nga wóolu ne yàlla suñu borom bi subhaanahu wa moo moo la may li nga xam ne moo nekk ci sëriñ bi man yàllaa ko may pour mu ñaan la pour mu nangu te damay wax ne. bëri na jigéen bu ñëw ne sama sama sama borom kër daf maag sama borom kër dañu am problème. Hmm. yaa ngi dégg wala kii kat dafa ma bëgg a takk mu jafe. Hmm. wala dama am visa mu jafe. Hmm. wala sama kii moo nekk caa caa moo ko féete gannaaw. te fekk lenn rek dafa wóolu ne ki may ñaanal nii mën na ma ñaanal mu nangu. cun damay wax ne. ñin dañ koy caaxaan juróomi ñin dañ koy caaxaane. man laa man. dama koy caaxaane bi maanaam bu ma la ko waxee. mooy ni ma koy fajee bi maanaa ay caaxaan laa koy faje ñett mbir xam nga mooy lan. nga am ak sa jëkkër problème. beneen bi nga bëgg tukki mu jafe. beneen bi fa tabaarakallaahu euh, nga bëgg nga bëgg ab soxna mu tëla. wala soxna sa bëgg bëgg waa ji mu të ko. cuun yooyu képp ku ñu ci ñëwal. wala sa nga am néew kattan. képp ku ñu ci ñëwal. balaa semaine bi del si nga yëg sa bopp wala sa sa aji faju da nga koy caaxaane mooy suñu borom dana ci defal tawféex ba. du ma ci moromu gaañ. li ma lay wax dama la koy garantil. la ilaha illallah dima wax ni garantie la de du ay caaxaan bu aajum fajuwul bu uh-huh. bu bu bu aajum la man na ma jox bu ma ko jox faaliwu ma man maa ngi tedd la ilaha illallah maa ngi tedd uh-huh. maa ngi tedd parce que ah, ñu bari dañuy ñëw sama kër ñaan lu ci man ma jox la jox te dara duñ ko seq man ak ñoom ñi dem ma dem kon manam serigne da ngay def ta yalla tax serigne lolou ñu doy serigne di serigne buñ nako yalla serigne yalla motax ñu ab serigne uh-huh té ñett yi ma la wax ku ñew ku ne dañ la ko defal té di nga gis ni li na li manam fatawar li nga sakko ci ñoom eh, yalla na yalla def na ma sha allah kon sëriñ yaakaar naa ni nak mhm. jamono ji mom xawma ma lan lan wara soxlo wa waaye yaakaar naa kaarange na ci nak jamono ji ray yi bare na mhm. yaakaar naa ndax it fekk la ba sa biir bërëbu kay ray la mhm. agressé la fekk la ba sa biir kër ray la agressé la rek dégg kon yakarna naa est ce que yoy karange mëna ci dara karange moy lepp gis nga nit ku amul karange am wërsëg da lay të hay waaw kooku noonu dem defar macha allah bokk na magasin am di dem chaque jour di ci xëy bañ koy rey yëgul ko dëgg lu tax kaaraange mm-hmm. gis nga nit wërsëg kaaraange moom moo koy moo koy aar nga uh, cun mm-hmm. kaaraange dafa doon loo xam ne mag ñi moom lañ gënoon a soxla pour ut wërsëg kaaraange boo ko amee ra am lépp ci àddina lu ñëw leen du dal ci yow day dalay mooy damay wax ne am na kaaraange goo xam ne boo ko takkee sa buntu néeg wala nga takk ko sa biir kër wala nga takk yow def ko muy nomb cuun lu la nit yéene lu ne ci kawam lay ci boppam lay dellu ku la liggéey ku ne ci kawam lay dellu amul caaxaat te ci politicien nag la gën a baax wala ci borom alal uh-huh. benn nomba guñ lay jox la ci borom alal la gën a baax wala ci ab politicien kon ñu ñu ñàkk ñi moom xanaa de am na am na yéen sax am na yeneen yu gën a yu gën a yu gën a garaaw uh-huh. yoo xam ne kilifa yi ci réew mi xam nañ ma ci te dama la koy garantil nga xam ne kat li li may wax nii du loo xam ne dama ko faraatu. mu mel ne yàgg nga jëflanteeg nit ñi ci suuf. bari na te génnoo ci télé yi. bari na parce que damay wax ne télé moom génn ci. Mm-hmm. daanaka bi maana euh, namu namu yàlla la rek. Mm-hmm. waaye man toog naa sama ruq. Mm-hmm. ay kilifa. yu nekk ci nguur gi fekk ma fa ma defal ma def jëflanteek ak ñoom te buñ buñ dégloo daañ xam ne ñoom ñoom laay waxal. ñaan yàlla dafa doon loo xam ne saxaaba kanaa xamoo saxaaba yi ñoo njëkk ñaan yàlla ñoo njëkk ñaan lu waaw ah saxaaba yi sax saxaaba yi sax dañ dañ doon ñaanlu boo demee fa tabaarakallaahu ci saxiihul buxaari yi wala saxiihul muslim saxiihul buxaari wala saxiihul muslim boo fa demee ñaari téere yu mag laa lay wax nii ay téere addis yu wér lañ nettali abu saïd abu saïd al xudri xudri mhm. benn sahaaba la ci sahaaba yi mhm. dafa yónni dafa ko dafa ko yebal ci benn xare mhm. ñu dem ba ci benn dëkk ñi sàkku si ñoom ña xiif naa maanaam lël bi daal xiif bu ñu demee ba ci biir dëkk ba ñi sàkku si ñoom pour ñu may lan ñu añ waa dëkk ba bañ toon li sahaaba yónent bi jamono yu nekkante kilifa kilifa ga yàlla def na ne am na tànk baa ngi métti am na luy métti ci moom sahaaba yi bañ ko déggee nag waaj na leen bu ngeen ku ku ko faj ku ne ñu jox ñu jox la yi mhm. bañ ko fajee mhm. waa ji yëkkati ay doggate xar yu bari jox leen mhm. Abu Saïd ne duñ ko jël duñ ko duñ ko laal mukk fekk yegguñ ci yonent bi bañ demee ci yonent bi yonent bi ne leen kan moo leen xamal fa maanaam alquran day faj la ilaha illallah kan moo leen xamal alquran day faj ñu ne ko ah ñun kat dañoo tawasul ci yàlla wóolu ne day faj rek yonent bi na na jox leen ma sama wàll te ngeen jël seen wàll kon dagan na. ba nga xamal ne ñaan lu dagan na. Uh-huh. parce que ñooñu ñaanal nañ ñooñu. saxaaba ñaanal nañ waa waa dëkk boobu bañ lañ amoon lañ lañ. bañ weexal leen ñu weexal leen ñu dellu ci yonent bi yonent bi jël wàllam. kon foo mën a déggee weexal dagan na sëriñ dagan na ñaan lu dagan na ñaan yàlla dagan na <laughs> te lépp ci kóolute la la aju de uh-huh. waman daa bi si waman daa bi si ala al yu yujab bi ma raama min al matin maam Cheikh Sidi El Hadji Malick moo ko wax uh-huh. na nee na ku ñaan yàlla wóoli na yàlla mi ngay ñaan. Mhm. am na. Mhm. si aj maa ne léegi yàlla na nangul. macha allah léegi kon sëriñ. Mhm. xanaa kon fii rek comme que jotaayu xam-xam la. jotaayu njariñ la. nga maye fi kaaraange yoo xam ne ku ko def rek. mën na la musal ci ay ñaan. ñu jàll ci leneen. waaw kaaraange yi nga xam ne ku ko def ku ne yàlla mën na la musal. booy jàng fa ah, ah, maanaam ah, wa in yàkkaadu. ku koy faral di jàng. saa boo xëyee. soixante-dix fois muy juróom-ñaar fukki yoon. yàlla dana mus dana la musal musal sa njaboot boo ko mënee sax def ko fa laaw ci ab maanaam ëll kën maanaam euh, siwo si wis ko ci kër gi wala waa kër gi sangoo ci yàlla dana la musal ko képp ku bëgg yàlla li ngay yëngu yàlla defal la ci maanaam ab yokkute jàppal fa inna ma al usri yusran moom kese moom kese baat alam nasara sax bu ko jàng inna ma al usri yusran aaya boobu kese aaya boobu kese boo koy jàng at mu ne da ngay gën di kawe te damay wax ne étudiants yi bëgg yi bëgg a passé université. wala fa tabaarakallaahu élèves yi bëgg am bac. damay wax ne nit buy ñaan. na ñaan lu ëpp bac. parce que bari na ñuy def bac def bac ba pare nekk dem nekk président wala am ministre. dëgg la Macky Sall mi ku nekkoon da ngay dekk président dana ko gëm. kon booy ñaan yàlla ñaanal yàlla am bag waaye ñaanal yàlla am lu kawe bac. ndax yàlla am na ko ndax yàlla am na ko. Mhm. te moom it luñ ci dañ cee gaaw de. yàlla de dugg ci examen yi examen bu mënul doon ci àddina macha allah léegi foofu comme que Serigne ñoo ngi dugg foofu yaakaar naa jamono ji nag. Mhm. Euh, boo amee kaaraange. Mhm. te yoroo moom sa dund du neex ndax jamono yor lan toll. dëgg yaakaar naa li yi naan mag bu amul gone ga. dëgg la te it njëg yi dafa gën a seer. dëgg la nit ñi pour bu nu xëyee suba moom saa saa su nu xëyee moom aajo bu nu am di ko faj lu nu yor di saa yu nu xëyee suba di am dépense. Mhm. yooyu moom ne nees di def moom. li laa fi xoolee si moo ci gaaw. damay wax ne nit ñi dañoo foog ne alquran yi yàlla daf ko wàccee nii rek pour nit ñi da ko jàng ci julli wala daf ko wàccee nii rek pour ñu koy jëfee wa nunazzilu min alqurani ma huwa shifaun wa rahmatun lil muminin yàllaa ko wax yàlla ne maa wàccee alquran muy saafara waaye muy yërmande ñeel ab jullit kon alquran ji bi maanaam problème boo am bu ne am na aaya bu mu méngoo pour mu faju li ngay wax ne mbiram dépense lii laa fi xuraysin moo ci gaaw

célibataire yi kenn waxu leen borom kër yi la <laughs> noonu at nan ngeen di nga xëccoo <laughs> dëgg dëgg <laughs> oustaz macha allah lii lii lii xam-xam la kenn musu ko xam déet ba ne la mag ñi man de musu ma ko dégg mag ñi boo demoon seen kër mm-hmm. même bu ñàkkee dépassé dañ la naan toogal léegi mu ñëw sama kër gi fi ñi fi ñëw bëri na ku ñëw bu fekkoon may wax dama naan toogal léegi mu ñëw toogal xaar ko toogal xaar ko cinq minutes doo ko fi def mu ñëw est-ce que amul koo waxante pour mu indi la déet yéen ñaar sax du ngeen xamante si nga loo gis lu ne kot la am. <laughs> yow miy dem di gis nga damay wax ne ñi ñu ne fii di xas sëriñ si. Mhm. wala di ngañ ŋaññi sëriñ si. Mhm. damay wax ne seen yar bee dalagul rek mais yar ba yar bi yar bi xëcc nañ ko léegi mu dal. te bu bu laa nit ñi daañ xam ne yar bi dal. macha allah comme que sànq dégg naa ci say biir wax nga wax wàllu ngóor a ñu tëjee foofu. Mm. moom moom moom lan nga ci mën moom. ngóor a damay wax ne man faj bopp bi faj ngóor moo ma gën a moo maanaam moo gën a yomb ci man faj bopp bi métti. mocc bopp bi métti ni mocc bopp bi métti borom am jàmm wala biir bi métti borom am jàmm uh-huh. faj ngóora moo ko gën a moo gën a sëriñ ngóora jafe na de foo gis ku naan ngóora jafe na rek daf ko mënta faj wala muy woote ne mën na ko te mënu ko hmm. te boo ñëwee dama lay garantil hmm. da nga dund ba faatu dootul la dalati <laughs> bu la neex takkal ñeenti jabar uh-huh. hmm. boo ca mën a boole ay taara nga boole ko ci sëriñ Demba Sall waay. bu la neexee. <laughs> takkal ñeenti jabar. <laughs> waaye du ma koy defal na kuy mooy yàlla. képp koo xam ne. <laughs> yàlla maanaam euh, yaag sa jabar yéen am problème. wala nga sentir na yow mii sa affaire bi maa mooy lool soxna si béggul boo ñëwee. Mm-hmm. incha allahu rabbi. Mm-hmm. maa la garanti ne di nga dund ba dee te du dalaat te dalaat moom Ngora. sëriñ da nga ci yor lu wér xanaa. am na kilifa yoo xam ne ñu ngi fi ñu ngi ci ci biir assemblée nationale carrément wala biir biir biir penc mi. Uh-huh. chaque jour nit ñi di leen gis ci télé yi. te moom lañ ànd ak am na koo ci xam ne ba mu ñëwee. Uh-huh. semanu yàlla. Uh-huh. ba mu jëfandikoo benn fan ñaar ñetteelu fan la moo ne ma a ah, sëñ bi man ko yëgatuma daal. kër gi neex na li bu ma la ko doon limal fii kenn du xam kenn du xam ñaata ñaata nit laa ci laa ci laa ci jëflante. macha allah di ko jaajëfalaat bu baax. Mm-hmm. waa Serigne Demba Sall ci jàkkaarloo gi nu jàkkaarloo moom macha allah ci jotaayu xam-xam jotaayu mm-hmm. njëriñ Serigne kàddu gu mujj gi la. kàddu gu mujj daal lenn la. Mm-hmm. mooy ñiy ñëw di ñaan lu ci. nañ wóolu ne yàlla ci yàlla la ñuy jaarale. waaye nag man mën naa garanti. parce que yàlla foog nga jubóog moom mën a mën a faj yenn yi. yaa ngi dégg. waaye nag fa tabaarakallaahu nit ñi tamit nañu xam ne. réew mi ñaanoo ko samp te ñaanu moo koy samp moo moo koy taaral. ñaan lu moo ko samp parce que damay wax ne nit ñi ku ci nekk avant ñi lay avant ñi maanaam ñiy def mariage ak suñu way jur yi mhm. yaa ngi mhm. dañoo ñaan lu ji sëriñ si mhm. kon boo judda di weddi ñaan musiba moo lay dal rek waaye doo am dara ñu ngi leen nuyu baax nag di leen sant fa tabarakallah waaw macha allah di ko jaajëfalaat bu baax a baax moom Serigne Demba Sall ci disponibilité bi. ndax ku ne xam na ni jot amul ak ak ay jaamu xeetu jaamu yàllaam ak ay ibadatam mm. ak nit ñi nga xam ne ñoo ngi fii ci bunt bi di ko xaar macha allah kon seen émission jotaayu xam-xam moo nekkoon nii. Mm. xam naa numéro yooyu ngeen di gis ci bannière bi. Mm. Euh, mooy numéro Serigne Demba Sall. pour yéen ñi nga xam ne da ngeen soxla pour mën a jokkoo ak moom. dañ leen di jox dig daje beneen yoon. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu.